sa fin te dañ la fekk macha allah ni nga jàpp mais 8 mars bi may ñëw nag si loo xamante ni ah bugguma ci woon yegg si waaye foog ma ñëw mi maman bi na xamante ni deseem ah, ba léegi deneen metti ñii ñaanañ nag képp ki na xamante ni rek sa yaay dafa làkku sama yaay yaa nu suuf sedd si kawam ak bépp maman ah bi nax ak képp ku ñàkk sa waajur mais 8 mars bi tey nu lay def Ouzin ak sa yaay ah ak tey teraanga ji macha allah bu la fekkoon bu ko fekkoon Ouzin macha allah ah lépp euh, nee naa tubaab fakkaat la te nekku fi. Mm. xam nga dañu ne kulli nafsi zaa'iqatul mawti Sëriñ Bamba ne ilaa suwaa nafsi sauf sama bos Sëriñ Bamba rek moo wax loolu de yàlla moo ne kulli nafsi zaa'iqatul mawti Sëriñ Bamba ne ilaa suwaa nafsi sëf sama bos Serigne Bamba kon moom rek a dul dee yàllaa ñu sàkk ñun ñëpp dañuy dee am na ay yaayu jàmbur yu dem lu ñu mën jooy indiwu ko ah dof indiwu ko ñaan julli ñaanal man de barke Serigne Saliou Mbacké saa bu ma jullee ñaanal sama yaay ak sama papa barke Seexul Xaddim ñaanal képp kuñ fa fekk ak képp ku leen fa fekk dinaa def xulalla ahad hmm? fukk ak benn def faatiya benn ñaanal bépp wey daaw la loolu moo leen di fekk mooy seen sarax ci bàmmeel képp ku ci am waajur bu wàññeeku del julli di ko ñaanal. Ouzin tey bu fi nekkoon ak macha allah léegi ah Ouzin Bongo bi moo ngi ko yóbbu fu nekk. tey bu fi nekkoon ak 8 mars bi loo koy offrir. waaw sama yaay bu fi nekkoon comme ni ma doon defak moom rek. parce que man xam naa ne am naa ñaanu waajur. billaahi wallaahi wal barke Serigne Saliou Mbacké sama yaay gërëm na ma ba dem sama baay gërëm na ma ba dem xaw ma kan waaye man leer na ma leer xam nga lan moo bon sey waajur gërëñu mun la ba wan la ginnaaw torox nga waaye lu ma mus a am mus naa for xaalis bu bari ma ko fàtte mukk ku mu ñoom ñu ngi si dëgg maa ngi ci lu dul dëgg ma for kalpe apparenti yooyu xaalis bu bari nekk ci ma daw na yaay yaay damaa for xaalis sama yaay na ma xaalis bi indi ko toog nañu weer ñaari weer di xool ko am xaalis bi ànd naag man sol dàllam na ma fan nga ko foree ñu dem ba foofu muy xool xaalis bi toog nañu weer ñeenti weer ba biir kenn lekk ko dañ ko mujj saraxe na ma du ma lekk lu ma for lu ma moomul lu ma musaana am jam nañ ma fi ci put ba may waaja dee laay mbay fekkee na ko benn pole Fuuta bu ma fekkoon ma togg ak benn xale bu jigéen bu ma doon labat ndekete daa nopp xale bu jigéen bi fekk ma ne ma hee ma nii mu jàmm paaka fii ci put ni may dawee noonu rek deret gi fees ma daw ba daanu si lañ ma yóbbu repos Mandel ma dem ñu ne duñ ko laal foog dugal ma ci oto pompier bi yóbbu ma suñu kër ne balaa ñu lay laal foog ñu xam say mbokk ma ne leen maa ngi dëkk bopp oto pompier bi weew weew sama yaay bi ma gisee dafa daanu keroog li génn ci man dafa jooy mok sama papa ñu yóbbu ma faj ma man ma dem boobu tribunal bu ndaw bi moo am waa ji jàllalee ko woon ma dem na baal naa ko police ñu ne ah ma ne leen baal naa ko ñu fay ma xaalis bu bari balaa ma koy laal jël naa taxi dem na yaay am su ma jamoon moo ma jox lii mu xaajal ma ci am lii téyel lu ma mus a am jox naa ko samay waajur may wax na ñëpp Sénégal yëpp may lancé waat message de toutes les mamans du monde nañ fonk sunu yaay tout tànk doom géej la xamuloo bu yori yaa xam bi nga jur mbaa bi nga la jural doom ji la yàlla jox nangul téye mu dëgër nit jur na doomam dem wan ko ginnaaw nit jur doomam te bañ a jur gënal ko nit jur doomam te di leen gënale nit jur doomam dem sànni mbalit ñoom ñoo sëgg boot ñoo sukk jur ñu ñooñu ñu kenn amul seen fay may wax lu 8 bi képp ko yor sa yaay teral ko ñi fi dese seen yaay yan na yàlla guddal seen fan may leen wér ak mucc ak mucc le ci barke Seydina Muhammad. l'émission tire à sa fin dañu bëggoon ñu ambiance fi géwal ah su fi yaram jëy bant yaram jëy Fatou Mbengue yaram jëy ah dañ leen ambiance tuuti. waaw waa DG ah, waa BG TV ah. ah macha allah nee ko ah. macha allah nee naa ko dama woon rek tey seet si sama frère sama nijaay ñu bokk benn maam man damay sama xol day sedd nii ma toog moom muy Ousseyn Mbaye Bongo nee naa ko sufi yaram jéey bant yaram jéey Fatou Meng yaram jéey yow da nga naan askan bi ma bokk kenn jéppiwu ma waaye yow it askan bi nga bokk kenn jéppiwu la ndax baax nga sa oyof ah sa yaatu géwal piir nga yow lii la woon rek ak Ousseyn Mbaye Bongo bu jeexee jeex na